yaa saa aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli tawakkaltu ala allah laa hawla wala quwwata illa billahi al azim salaamun qawlan min rabbi rahimin qulama awqadu naaran lil arbi atfa allahu alors asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi nuyu bépp sénégalais buy seetaan leen nuyu yéen waa Senbuzz TV alors en tant que citoyen sénégalais en tant que porteur de voix Khalifa rappeur la askan wi noonu naa fekk yi noonu coin yi noonu deux pièces yi noonu këtt gen yi noonu kanaara yi noonu bullshit yi yesaay toos ñebe muy but buti waaw di but buti si dëgg rek ak si jàmm salaam noonu la demee di but buti di but buti di but buti ba incha allah Sénégal am ndam te loolu kase mooy suñu combat muy combat boo xamante ne nii saa waay xola lu ñuy dund la ba pare di ko def pour intérêt Sénégal njaay yëpp muy suñuy valeur ñu sàmm suñu ay bonne valeur yi nga xamante ne nii suñu ay mag yu baax yi si loolu nañ ñu tete te si lool nañ ñu soññ te si lool nañ ñu yar yaa ngi dégg waaw ba pare di but buti tamit gaamal la sumuwaay si ndamu Sénégal si koom-koom bi Sénégal am ndam ak xéwal Sénégal am développement ñun loolu la ñuy dund quoi noonu la demee ñun soxoruñu iñaane iñaanuñu yéene wuñu kenn safaan wala lu bon mais daa fekk ni sawaay mooy li ma la xoola public public la public public la quoi booy boo ñëwee si toile bi booy publiquement ngay jaay dëgër bët di jéem a jaay wowle di jéem a jaay caga wala di jéem a jaay wuyu booy Sénégal xoola jur na ay doom yoo xamante nii ñoom ñooy ñëw publiquement xoola démasqué la wan askan bi xoola yow yaay kan réellement wan askan bi saawaay waay xoola nii nga mën a men parce que sa démb nii la menoon loolu kase la quoi alors gis nañ maanaam benn idéologie wala benn influence bu bon boo xamante nii day influencer suñu ay jeunes fii sénégalaises à ce que ni maanaam ñu ñàkk jom bañ a sëyi wala di sëy pour intérêt wala di sëy pour xaalis xam nga waaw ñu génn gaamal la sum publiquement wax dëgg te yàlla rek a tax ndax dëgg mooy lu ma la wax moo ñëkk te moo mujj te moo neex yàlla noonu la demee waaw alors tey si tey nax koopul mboq mënoo ko jëw senegal nañ nekk te ñun saa waay xoolal réew fii nii senegal waaye da leen ñuy gis nii lekk da leen ñuy gis nii ñu nekk ay jëmm yu xeebu nekk saa ñoo xam ni xëy na tekkiwuñu dara mais combat bi ñu nekk saawaay waay muy ay kilifa diine kilifa aada ak kilifa réew mi ñu si bëri saa waay xoola dañuy jàppale dañu ndamoo te dañu tiitaroo tamit parce que xam nañu li ñuy wax xoola dëgg la te pour intérêt Sénégal njaay la ñooñu comprendre nañ idéologie bi ak tamit xoola objectivité combat bi yaa ngi dégg waaw alors def naa benn vidéo semaine passée ba ñu dem yaakaar naa ba xaw ma mardi xaw ma mercredi si laa ñëkk jot information naa wax dëgg bi ndax ndax dëgg mooy li ma la wax moo neex te moo moo moo moo mujj te moo neex yàlla te ñun boo ñu tëralee di ñu rendi sax saa waay xoola ñu wax dëgg bi te yàlla rek a tax tous ñebe muy bud budi si dëgg saa waay yaa ngi dëgg alors mardi xaw ma mercredi laa ñëkk jot information mardi laa ñëkk jot information si nag ma woo na ma maître Baba maître Baba Diop boobu noonu moom moo bëgg nekk maire Gueule Tapée yaa ngi dégg avocat la moom mooy avocat wu Bamba Fall maire de la Médina bu nga xamante yàgg nañ génne publiquement di dénoncer saa waay ay mafia am ak ay yi muy def si commune de la Médina yaa ngi dégg waaw alors tey si tey maître Baba Diop boobu nañ jot information que moo doon wax téléphone xam nga waaw. Khalifa rappeur ce gosse là il nous emmerde maanaam di influencer maanaam à ce que ni ñun vidéo bu ñu def xama ñu faagaagal ñu si quoi porter plainte def seen i pexe mais Maître Baba Diop booy saawaay Ahmed Sissoko ñoom ñooy avoca Bamba Fall yi en même temps tamit loolu noonu ngeen doon dégg noonu maanaam jëkkëru loolu noonu yaa ngi dégg. moom moo leen doon défendre maanaam wala boog maanaam ñoom bi ñuy lal seen i pexe si waajooju noonu sax nañu influence à ce que ni xoola demal nga porter plainte waaw booy di dinañ ko faagaagal yéen nii lal seen i pexe tous fii saawaay xoola ñu ngi sax si di ñaan yàlla mu làq ñu fu yàq yeggul saawaay boo tëbee tëb def seen association pour yàq ñu saawaay bu neexul yàlla xoola du si mës a dal man la sum waajee Ahmed Baba Diop gan man la sum waajee te pourtant yàgg naa dégg sama papa muy avocat international lu baax la la woon wax si moom barki alxuraanu karim naan xama père nga xay woowee moom père moom tamit mu jàppee la doomam booy naxate woo booy saawaay yi yow kon sama papa su la wanoon ginnaaw gaan nga jël paaxa jam ko si ginnaaw saawaa ji nit a lëndëm barki alxuraanul karim dee leen gis nii rek baaxuñu santuñu yàlla lu ma gën a metti dañuy génn di tëbaka dal di wax ay yoo xam ni gëmuñu ko te dëgguwuñu saa waay ji pourtant ñun booy saa waay nu ñu munti men booy saa waay xola suñuy parent muy man sama papa sama yaay xam nañu man saa waay xola dëgg moo ma yàq ndax ñoom xola ñoo ma si yar tete ma si waaw xëy na daal fenn kase nag may blâmer mooy bàyyil saaga noonu la demee te genre colosaire yi baa da nga lay siisuloo quoi mooy loolu loolu kase la mais sinon booy saa waay xola ñun suñuy parent xam nañ ñun dëgg nañuy dund xam nañ ni saawaay ñun dëgg moo ñu yàq xam nañ ni xoolal sàcc ñu tuxuñu naanuñu defuñu lu bon barki alxuraan ndax léegi saawaay xola respecté leen ak jàppee leen tamit xoola ay nawle ay kilifa ba ñu leen metti mais suñ neexoon saawaay taan bi fii ñu dund fi xoola lu ñu neex te tous du mujj fenn barki alxuraan ndax ay nante nañ xam nañ taan yu baax nu muy demee saawaay Mouhamed baabu Diop gaama la sum waay koo pour mboq mënoo ko jëw barki alxuraanu karim mardi laa jot appel jot information yooyu yëpp ñu ne ma xoola jugal boobu nag xëy na may sàggane nekk si yeneen yaa ngi dégg ba mercredi mercredi gaamal la sumuwaay lu ma gën a naqadi booy lii but buti si réew mi mi ngi but buti quoi si réew mi booy Sénégal ñëpp xamante nañ moo tax ñun booy saa waay xoola booy def si ñun lekk booy xoola defal si ñun jàmm salaam parce que booy da fi bëri ay mooxu booy te nit yi dañuy wax dëgg bi te yàlla taax nit yi bu ñuy waxul sax saawaay xol dañuy gis dëgg bi nii yàlla moo ñu ko may moo ko def si ñun saawaay ba pare gaamal la sum waay boo leen di def da leen def si ñun jàmm ak salaam moo leen di jig sinon gaa ñun dañuy wax ñun ragaluñu dañuy wax quoi noonu la demee dëgg laa waay xool injustice bu ñu mun ti teg suñu kaw dinañ génn dénoncé ko wax ko saawaay ñëpp dëgg saawaay ji lu ma gën a metti gaamal la sum waay affaire de civil affaire de civil ok plainte am mais nañ jaaral yoon comme civil bu ñëwee plainte rek ok ki nga plainte lan mooy numéro téléphone am wala ñu lijjanti numéro téléphone am wala adresse am ñu woo ko mu ñëw du dëgg mais demeewu fa noonu booy ñuy jéem a faagaagal naan waaw nañ def ay coup mercredi laa jot appel ay côté 17h fekk diggante boobu noonu sax loolu noonu xoola mi ngi woon def benn vidéo en direct booy di def ay action di yàq der waaw di menacer naan day tëjaate ay six mois ay dootoo ko defati ay lu ne sa baay est sa baay moo moom yoon est sa baay moo moom réew mi est sa baay moom moom Sénégal ba nga xamante ni gaamal la sumuwaay da ngay def se yëfu caga promotion caga publiquement nit di la si bàyyi gaamal la sumuwaay ngay influencer sama rakk bu jigéen sama jarbaat bu jigéen ak gaan jeunesse su féminine réew mi ñu la siy bàyyi est sa bàyyi moom moom nit yi gaa man la sumuwaay di menacer booy Sénégal booy man la sumuwaay lu ma gën a metti booy léegi caga yi booy da fi am doole boo xamante ni nii sax booy xëy na ay autorité amuñu ko quoi cagatu booy cagatu caga luxe booy mooy am doole Sénégal quoi naan day tëjaate ay six mois naan day defay ay affaire ñebe muy but buti saa waa ji xamoo sax si li nga dugg barki alxuraanul karim alors lu ma gënoon metti gaamal la sum waay boo ñu jël ma naan da nga may kuu di ma piège ay allo ay waaw da lay jox ay information ak lii ak lii ñu jox la cinq cent mille francs pour nga yàq diw mais heureusement saa waay alhamdulilah dem leen orange ngeen réquisitionné appel yi ngeen déglu ki ma wax loolu xam la laa ko tontu dama ko ne saawaay man ay yàq nit yi man new ma si quoi boo bëggee daal ñu tase nga jox ma ay information àdduna dafa gudd tànk te man information fu ne laa koy jëli si Sénégal est ay dégg noonu la demee quoi. booy Cheikh Kacha bi ma demoon fi ñu nee foofu la ma gars yi jàppee da ma fa pièce booy jeudi laa fa ñëw ay côté 17 heures kooku topp ma di ma woo di ma woo di ma woo ma ne ko maa nii di ñëw yaa dégg ma dem ñu lal ma pièce gars yi wàcc embargo ma. ba ni ma ñëwee noonu sax man réew mi ngi may jàpp maa naan mais yéen seen affaire yi nii ñu ne ma non am nañ droit procédé noonu ay ok lu ma gën a metti booy saawaay loo xamante mi ngi enquête ñu ngi nekk maanaam di enquête affaire bi di auditionné lépp ump ko moom parce que lépp yaa ngi gis muy publier jàpp nañ diw booy di ma photo booy di def ay affaire di ma jaay doole booy man munoo leen ma jaay doole yéen munoo leen ma jaay doole. laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man yàlla ji kese laa reconnaître dooleem saa waay te moom kese laa na nangul keneen ku fi ñëw naan dafa may jéem a jaay doole xooloo tous barki bañas ak képp koo mun ti doon faalewu ma la lijjantiwu ma la te tey si tey maanaam képp ku encaissé wéccit pour faagaagal ma ah wala pour coller ma ay affaires yu ma daful xaalis boobu nga encaissé yàlla nga si cancer te yàlla na aw si sa njaboot balaa balaay déwén si barke yon ci àlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si barke Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu si barke Bañas képp ku encaissé xaalis pour jàppale ma pour taxawu ma xaalis boobu yàlla na barkeel yàlla na doon ay milliards si sa njaboot si barke Bañas si barke yon ci àlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi dégg voilà ñun saa yàlla kese na ñuy dund bëgg suñu réew xoola la yàlla nattoo booy ñu gëm saa waay suñu maam yu baax yi li ñu defal Sénégal barke boobu noonu moo law suñu jëmu yu xeebu yii ñuy xeex pour intérêt Sénégal intérêt bonne merci yi ak bonne valeur yi saawaay ak pour intérêt saawaay xool économie Sénégal loolu moo ñu yëkkati mais ñu ñuy jéem a faagaagal booy di ñu jéem a def affaire nag xaalis yàlla leen ëpp doole téeméeri junni yoon barki alxuraan te ñun yàlla dañu àndal moo tax xamuñu tiit xamuñu lu ah xamuñu luy regal quoi dañ koy dégg kase yaa ngi dégg alors ñu dawal noonu gaa man la sum fii booy Sénégal booy nit yi dofuñu du dëgg mais les procureurs booy respect à la justice sénégalaise yaa ngi dégg justice sénégalaise booy xoola da nga koy tóojal di ko respecté parce que xamul tax parce que mun munoon nañ xool affaire de xaalis wala def affaire de favoritisme wala dara non mais dofuñu quoi dañuy seetaan vidéo xamul ma lay expliqué man tey si tey ok xëy na yoon maanaam. fenn la ma daaneel te tey si tey man loolu noonu jël na sama image di def ay affaire lu ko neex mu def ok mais man booy xoola booy man du ma tudd turu caga booy man duma ma tudd turu caga caga du ma tudd turam quoi noonu la demee te caga xoola amul lu may séq moom faale wu ko lijjanti wu ma ko waa naa leen fii xoola caga bu ko neex na dem cagatu baay baar yaa ngi fi walla boog hôtel yaa ngi fi booy auberge yi bon lijjantiwuñ leen quoi même suñu amee li nga fa war a def wala dara noonu su missionnaire bu ñu bu jeexee jeex na échange ay dégg mais tey si tey booy man la sum waay caga bu jaay dëgër bët di jéem a jaay affaire jaay wowle nan da ñëw di def promotion cagatu publiquement ñu génn damaské la booy Sénégal booy xam nañ leen yéen ñëpp booy dëkk bi dafa xat booy comme pot yaa ngi dégg boo si defee butéelu ndox sax du si xaj yaa ngi dégg dëkk bi ñëpp xamante nañ ak képp koo ti doon boo ñëwee si toile bi publiquement di jéem a jaay affaire ñu damaské la wan nit yow yaay kan fii ñëpp xamante nañ te amaana ñun sax bu ñëwoon booy publiquement pour yàq jeunesse bi yeneen doomu réew mi dinañ ñëw xoola damaské ñu. yaa ngi dégg voilà mais ñun lu ñu nëbbul yàlla ji xoola di ko nëbbu doomu aadama li ñuy dund moom la ñuy dund si sutura ñoo leen gën a metti téeméeri junni yoon gën leen doy war xëy na amaana. yaa ngi dégg mais ñun suñu lépp ñu ngi koy def si sutura bu ñu génnee publiquement si toile bi xola dañuy influence booy à ce que ni xoola ñu jub di jubal dëggu di dëggal pour intérêt Sénégal yaa ngi dégg mais caga gaamal la sum bu jógee fee caga caga la caga caga la mooy but buti réew mi bokk caga caga la caga caga la caga caga la incha allah dama koy sax sound bu ko defee ñu defaale ko benn saan xola pour intérêt Sénégal njaay lépp loo xamante ni nii xola stop à la promotion de la prostitution man la sum waa ji phénomène bi am Sénégal booy lii but buti si réew mi gaa man la sum nga xamante ni nii booy suñu doom yu jigéen yu bëri si yooyu nañ leen di yàq si nañ leen di influence à que ni nekk leen ay caga ñu yóbbu leen Dubaay nekk leen ay caga ñu jëndal leen ay iPhone nekk leen ay caga ngeen di dawal ay 4x4 ci oto yu neex yi nekk leen ay caga ngeen am ay salon de coiffure ak ay salon di jaay ay yëre wala affaire yooyu yëpp ay blanchiment capitaux la. yaa ngi dégg blanchiment d'argent la ñun booy duñ ay ngaaxa ñoo leen gën a xam réew mi téeméeri junni yoon gën leen dëkk ci réew mi gën leen bokk ci réew mi ëpp leen fi mboqu man la sum waa ji jugee gaamal la sum waay booy jigéen yi booy li moo tax booy booy léegi kenn nangootul sëy presque kenn sëyatul wala ku sëy nga amal la su mu waay sometime nga divorcé wala boog loolu gaan fléau boobu catastrophe boobu jéemuñu xool na nañ koy lijjantee pour wàññi ko ñoom ñuy génn naan dañ koy jéem a yokku caga yu bon yuñ doon caga yu perte ñàkk jom man la sum waay fii caga caga la caga AP caga masqué ak caga maanaam influencé a xeetu caga bu bees bu am boo xamante nii gaamal la sum sëy tas sëy tas sey tas sey tas ba pare di ko ndamoo di ko tiitaroo ba pare gaamal la sumuwaay dem ba perte ay gur jigéen maanaam booy taan bi booy dafa salté de booy ay gur jigéen ñooy takk caga noonu booy ay gur jigéen ñooy takk caga yooyu di influence di jéem a jaay ay affaire pour léegi après ñu mubboo que ni ah man de sa diw mooy sama jabar diw mooy sama jëkkër ah diw kii lay sëyal affaire yooyu yooyu yëpp ay mubboo la ñun duñu ay ngaaxa booy xam nañ bu baax nu mu demee fii caga caga la muy caga AP beex caga Lucie beex ñëpp ay caga nañ Sénégal fii du ñu mësa nangu promotion cagatu yaa ngi dégg voilà. tey si tey nax gaamal la sum loolu moo doon message bi ñun saa bëgg suñu réew gëm suñu réew yaa ngi dégg bu ñu xalaatee ni Sénégal xoola dëkku Mawlana Cheikh Ibrahim Bañas la lekk ah ñun sant yàlla quoi combat bi lu mu metti metti même bu ñu tëraloon du ñu rendi sax sant yàlla ñu deewee ok noonu la demee di wax nax tamit seytaane yi ak naafeq yi kolosaar yi ràmbaaj yi nga xamante ni kontaan noon nañ trop di tëbakat dal di dafay affaire génnee xaalis gaamal la sum pour faagaagal doomu Sénégal di fay ay nit pour ñuy génn di jubile naan lii ak lii ak lii di wax diw di tëbakat dal di kontaan di commentaire di dafay affaire yàlla weer na leen de te dëgg rek kay mujj incha allah man la sum waa ji di wax ñooñ ñoonu yëpp maanaam xoola ñu ngi sax si di ñaan sénégalais yi ngeen musal ñu si pexe nit yu bon yooyu noonu mooy pexe noon yeex pexe yàqkat yi ak képp ku ñu yéene lu bon ak ku ñu bëggal lu bon ak ku ñu naral lu bon. yaa ngi dégg pour intérêt askanu Medina moom saa jarul ay coup jarul mafiya jarul dara ñun ay doomu réew mi nañ ay doomu Medina nañ Medina lu muy bud buddi di ko wax ci suuf ñun loolu la ñuy wax ci kaw ñëpp dégg Medina lu mu bëgg suñu bakkan nañ ciy teg dañ koy xeex waaw te Medina moo bëgg ba pare di wax ci kaw Bamba Fall dégage kon Bamba Fall da dangay dem par la force loolu ngeen kuu ñu dugal ñu ci kaso bi ngeen tëj ñu ngeen tëral ñu rend ñu lépp par force da ngay dem Bamba faal dégage loolu askan moo ko wax askanu Medina volonté populaire communal saa waa ji Bamba Fall dégage plus de soixante dix pour cent des Médina waxoo kon da ngay dem ba pare Médina tànn Cheikh Ahmed Tidiane Ba Messi maire de la Médina loolu saawaay xoola mu neex la ak mu naqadi la jarul sax saawaay xoola ay yónnaate ay dafay ku wala ay mafia wala dara fii lu waay rend si loxoom lay ñëkk naaj lu waay def boppam barki alxuraanul karim alors tey si tey nag fu may tëjee mooy vraiment di ndamoo te di tiitaroo te di bégee sénégalais yi nga xamante nii jàppale nañ ma te taxawu nañ ma te xam nañ ni kat gaama la sumuwaay kii moo nekk si dëgg waaw ndax public moom public la waa mooy lu ma la wax toile toile la yasaay tey si tey nag naa si lim ñu bëri waaw ku si mel ni samay avocat maître Moussa Konaté maître Wade maître Mamadou Seck dama leen di gërëm di leen sant maître Sey bu APR dama koy gërëm dama koy sant maître Tall bu Pastef dama koy gërëm dama koy sant yaa ngi dégg damay gërëm tey si tey waa Médina askanu Médina ñi tax ñu naan Médina maam les Médinois à cent pour cent waxuma ñi nga xamante yi nii fee nañ jugee si àll bi de ñëw forcé bokk bokkulu ñoo ne tey si tey ñooy Médina nii non non le collectif des jeunes de la Médina kulim juum nax waaw am coordonnateur am dem amadu Sow Bouba saasum si di sama frère di doomu suñu pap maître Biram Sassoum si yàlla na ko yàlla xare àjjana yaa ngi dégg la famille Oumy saasum si Bakar Waly si ñëpp maa leen di sant di leen gërëm ak suñu yaay booy di gërëm te di sant sëtu buur yaa ngi dégg booy gars yi ma taxawu booy docteur Mbodj yaa ngi dégg tey si tey damay gërëm te di sant tamit buuba Baye Fall kapi booy Pam Pam Mali ñaa mention spéciale bu fa booy tey si tey booy xoola si ATB booy dama leen di gërëm di leen sant da nga ma taxaw barki alxuraanul karim booy ñun saa waay xoola APR Macky Sall Pastef Ousmane Sonko ñëpp maa leen di gërëm maa leen di sant parce que xam nañ ni saa lii affaire u Sénégal la waaw ay colochard yu tekkiwul dara gaama la sum waay juge fee ne gaama la sum waay ñëw bëgg mubbu waay affaire de politique lal pexe nii influence yi tous ñebe muy bud bud yi saa waa ji dëgg rek kay dëgg te dëgg mooy mujj incha allah yaa ngi dëgg tey si tey tamit booy mooy lu ma la wax ku lim jum booy damay gërëm te di sant booy xoola askanu Medina bi yëpp sama gaa yëpp maa leen di bégee mafia bu wow kong bi bokk mafia dëgg bi ONG Jamra mais dama leen di toojal di leen damoo te di leen tiitaroo di ziar te di bégee te di màggal tamit maam Matar Gueye muy sama maam yàlla buy defar day mel ni day yàq quoi problème bi nii xëy na amaana maam yàlla daf ñu ko tegal muy lu ñuy jéggi dem incha allah yàlla maanaam feeñul ñu si ay affaire yu bëri muy ay mboq yu feeñ ak ay yeneen ak yeneen ak yeneen ak ay connaissance ak yeneen ak yeneen ak yeneen yaa ngi dégg tey say maam Matar Gueye sama maam booy la. yàlla nax ay mbiram amul hasard quoi waaw xëy na deret bi la gaamal la sum waaye lu ñu yàlla nattoo gaamal la sum waaye mu nekk bëgg suñu réew gëm suñu réew ak dëggu ak bëgg fi lu baax yaa ngi dégg ONG Jamra man en tant que porteur de voix en tant que homme public en tant que citoyen sénégalais yaa xamti naa trop saa waay xola dem bokk ONG Jamra quoi ah pour tamit xoola gën a jàpp si combat bi booy booy cagatu booy ak góor jigéen fii Sénégal promotion cagatu ak góor jigéen fii Sénégal di ko muusa nangu barki alxuraanul karim loolu booy jarul sax kaso kaso day sedd muy kaso ak baamel nañ si yamale barki alxuraanul karim alors Khalifa rappeur laa askan yu man la sum waa noonu naa feq yi tous ñebe muy but buti waaw di suus